rek la waaw for real eh, foofu lañ ko jiyee right now ñu ngi study more about music ñu ngi mm. study instrument ñu ngi gën a suufeel suñ boppa because taalibe lañ teg si xale lañ at at mu ka at kanam bëri na daal loo doonu taalibeem doo doon sëriñam kon naka léegi tamit yow ñu bàyyi la aw comme moom lu mu wax ni si laa bëgg a sànni rek waaw comme mu ngi mu ngi ñu ngi nga téye sa mic bi tuuti mu bu film flanc waaw waaw dégg la comme gis ñëpp dinañ la dégg waaw dégg hmm. comme lu mu doon wax ni si laay ñëw rek hmm. si laay ñëw because gis nañ Gambian music naka la mel foog nga liggéey lu bëree bëree bari pour ñu mën laa gis yeneen yeneen yi ba nga yegg foo foo doon séentu hmm. moo tax it togguñ ñu ngi si gëstu yu bëri te ñu ngi liggéey lu bëree bëri tamit loolu am na solo ah, bu fekkee ne nag gars yi seen clip bi pare nag fu mu nekk nii nañ ma dugalal clip bi Kër gi family ñu dem seet tey lan lañ ñu indil bu boobaa suñu dellusee ah, waxtaan baa ngi fi te Ismaila tamit mu ngi fi dina am loo xam ne tamit dina ñu ko ah, baaxee incha allah. waxtaan ak la ñeenteel ba ca waañ ba ca xaalu ñu néew le fekk leen ca añ ba ñëpp di ay naw le xame leen ca teñ ba yor taaru tambe doo dégg wax ca koñ ba saalum saalum moom jëtal ba baye dee ji xol ba dugub gerte xaal ba te soo ko meree xol ba sa dëgg dëgg dañu bëgg dëgg duñu sëgg fonk ca sandi dëgg seen weñ ñoo tëgg xale yi mbégeeg bëgg dañu muus na la seen dund méngawul ak ca dund tubaab roy leen ñu ne dund góog is tubaab seen biir néegi sëy gura fa ëpp xalaat ngoon ak colorique kenn du leen ci débat gën a géej leen soob du bëri ñi fa débat du bëri ñi fa débat bàyyi ma la you up time. dara bindal ma tere bindal ma yere lu bon duma yene yalla yalla tere bakkan duma mere salum la di rere yabba cere bay mom du were tadu daw xare ma la min dara bindal na may tere tere yanga salum salum ñetti na lo ñettel bari wango wango wango bula dugu fa lek bu suula ki mooy buuru saalum ñëpp nan ko maalum du ragal lu daw bëgg as kanam raw xam am kam du taw ba neex Kang ni pumalena na ubo Pumalena na ubo Bàyyi ma Lamin bàyyi ma Lamin bàyyi ma Lamin dara ci dara ci bàyyi ma Lamin bàyyi ma Lamin bàyyi ma Lamin dara ci dara ci borom taar borom taar affaire bàyyi ma Lamin bàyyi ma Lamine Diarra foog naa nag ah, sëñ Diarra nag war na ma bindal ma ni tamit téere parce que artistes yi yëpp ñu ngi ko ah, xam naa balaa maa ñëw ci yéen parce que fu mu nekk nii daanaka waxtu bi ah, Ismaila Sayen Drong ba bi na wularamam programme mooy itel naata kenn special consultant yi yéen ñu clip o jeñaadi le the song and clip okay ko mm. kabi foye sometimes um, the concept of jinna clip mm-hmm. It can even tell you, even if you don't understand the language. The language, beautiful. And all these are things, they are contributing factors towards the music sense development. Mm -hmm. Because if you want it cheap, you'll be cheap. Yeah. You know, the concept has to be built. So that because you can't allow me here, because music, I two ways. So. Mm-hmm. Sometimes there are people who will be interested in the rhythm, mm-hmm. and a beatnik. Yeah. They are listening to your lyrics. Lyrics, yeah. So these two things, they should match. So it not be based you know, on one side, because yes, another rhythm should be the current generation rhythm, and the lyrics also has to be like that. Hmm. Najibela music Godwin, it was single-sided. Adibala Fanako, like you need to spend on your videos, because the video quality, hmm. it contributes a lot. Hmm. If you don't spend, you will not earn. But all of them want to earn. Nobody want to spend. Okay. And business, you cannot wise it. For spend, you have to sacrifice to be willing you know, not target, this is my aim, let me make sure I do it accordingly. Okay. Then you'll be able to achieve what you want. Sande Ismail ambe minkela drong walong muta mutajan uh, better part of the day mbe bulal drong katabake in mbadingoli saro di nyola po na wulara uh, mankote. Abaraka bake tijan, nkontanta bake. Uh, Mbenda mol kontona je Mahmoud, Saribu champion, was Mahmoud, uh, DG, analtulbe. you guys accommodate me here. for more fun camera for me to Thank you very much. So That's I'm very happy. I'm very, nice very happy person. with you people, yeah, definitely. Thank you very much. And I'm proud of you people. Thank you very much. Thank you so much. Okay then. Okay. All right, thank you. Uh, léegi nag ma ñëwaat ci yéen ah bu boobaa fu mu nekk nii daanaka lu ñu waxtu may bareetut léegi ah, ñu invite ko waaw moom itamit mu jël ci mm-hmm. ah, gis nañ seen vidéo bi vidéo bi nice na trop ah affaire bi dox na musique bi dox na mm. ah, te lii rek moo mën a dimbale artiste bi fu mu nekk nii what next waaw ñu may ko rek moom itam mu nuyoo hmm? waa aca nuyoo jëlal ok ñu ngi wax asalaamaaleykum everybody ñi nga xam ne ñu ngi toog jàkkaarloog GRTS right hmm. now hmm. moo xam yaa ngi dëkk bi moo xam yaa ngi ci biti ah, di lay wax ne ñun la kër gi famille ñetti booyu gàtt yi yu tàcc yi borom xel yu màcc yi <laughs> loolu moo dee rey gars yi nag ñu bari boobu dañ dee def waay booy di wax li bot soo ko seeti ba jibi tamit am na lu fa nekk yëpp jàng moo ñu ko may style ñu ngi jàng comme ni ko Barham ak Diem waxee musique bi yëpp jàng saga la soo gëstuwul doo xam lu bari. Mm. soo may ooj suma brodo yi nga xam ne artiste lañ nekk ci dëkk bi suñu si tey nañ jàng. ok ñu jàng loolu am loolu am na ci solo parce que loo loo doonu ah, taalibeem doo doon sëriñam. waaw léegi fan ngeen teg seen loxo what next. waaw boobu naa la si sa war a tontu euh, fu ñu teg suñu mm-hmm. na ba nga xam ne nii eh, du ndaw ko mun a wax. Mm-hmm. because ok ñun. we are working for the future for the future Come ni ma ko waxee si not lingam nga ne nii dafa dunda tey we wanna make history when you wanna make history fonga nga hard with lot of determination Hamga nga te lu bëri si because nyun society seetaan ay clip bi sax di nga xam ne kër gi am fi ne dañ uh, we believe in our culture because they believe like ne uh, sa ànda soo ko wàccee ànda dem fekk and uh, we African here hmm. so you bring them up to a stage that they dañoo sell outside foog culture be part of us we don't wanna be assimilated by the eh, western culture just like that so more than you then del that culture uh, doing fàtte western bi because music la waaw dafa universal waaye nag sa sa culture moom suñ culture loolu moom am loolu am na ci solo waaye dafa mel ni rek dañ ma woon ne dañ ma jagleel ci waxtu daanaka jeex si na xam naa rek euh, yoon emul ci benn lu xew sax mooy dañ leen demoon lool moo tax ma ne su deen benn two minutes la sax ñu indi leen parce que tey li ngeen fi wax rek uh-huh. ah li li lu tax ngeen noobu yëpp feeñal nga feeñal ngeen ko ci baat bu gàtta gàtta gàtta te foog naa lii mooy loo xam ne am na solo parce que boo nëbboo trop trop te ñi xamuñ si loo nekk boo yàggee rek da suux kon nag